Le projet est une euh, plateforme de commerce électronique plateforme nationale de développement de commerce électronique euh, donc euh, boo ministère du commerce est moo ko euh, Sénégal, ko Sénégal et ko ak 2000 Je suis un partenaire technique moo ñu jàppale donc tey euh, ci cadre fonctionnement plateforme qui ci la invité chambre de commerce yi nekk ci biir Sénégal ak ci ak Dakar ñu ñëw ñu distribuer len ay matériel matériel yi euh, ay moto Jakarta la ay imprimante euh, ordinateur appareil photo euh, ak yeneen matériel donc yo xamantene pour ngir ñu mën len jappalé ñu mëna a jouer sen rôle ci région yi jappalé ñom tamit sen côté ci région yi ñu nek jappalé acteurs yi producteurs et transformateurs yi ak ñëpp képp kuy jaay ndax ngir ñu mëna bokku ci commerce électronique donc mën a euh à partir donc de leur ordinateur ak de leur téléphone portable donc loolu mom moñu ñu euh, moñu ñu mo ñu waral ndaje bi tay ma ngi rafetlu bu baax euh, suñu teewaayu tey nii euh, ci jumtukaay yu wa ministère du commerce yu ñu jox. Euh, li vraiment tay euh, njariñ bu mag parce que tay bo xolé niñ koy dafa sori étant donné que man sax damay soriwul Dakar mo sori mais euh, dinañu permettre que tay ñun ñu mëna jaay Dakar wala Saint-Louis donc bougé wuñu sax donc euh, gis nga impact bu muy andi dafa bëri te aussi du question njaay bi rek parce que comme léegi le directeur commerce extérieur lu mu waxe dina jappalé aussi euh, petite et moyenne entreprise pour ñu formaliser wu am seen jumtukaay pour mëna a correctement donc loolu yëpp euh, projet bi dafa am lo xamantene ki activité yu bëri yo xamantene ne dana sukkali vraiment comme comme bi ci réew mi